waalo potentiel am ci économie kenn xamul lu mu toll. nee naa waalo rek mënoon na régler problème bu Sénégal ci autosuffisance alimentaire waaye soo ñëwee ci waalo saako yi muy woon usine Sokaas usine boo xam ne nee nañu tey 2000 ba léegi wala 2012 ba léegi la tëj. ci usine bo xamné ne mu doon andi ci koom-koom ak ci social bi ci ci wa Sénégal kenn lu toll usine bang ni nii à côté suñu toogee ba ne léegi bay fi ci tamaté dañ koy obligé yóbbu ci ay camion naan ñu koy yóbbu Dakar pour peser ko fa te ñëpp xam nañ ni euh, tomate bi li ëpp ci tamaté ndox la boko ko jëlee fi mu nekkon diko ko transporter rek day perte ci poids perte ci valeur am ndox mi day évaporé wu. kon suñu toogee ba ne Sénégal ba mu daj li nga xam ne Sokaas nga xam ne fierté la woon nationale pour Sénégal ñu ci doon def tomate pour consommation nationale di ko def ci consommation pour consommation Sénégal mu doon créer des centaines d' fii ci Dagana ñu ne tëj ne 2012 ba léegi état du Sénégal di ko seetaan ni mu seetaanee usine textile yi. ni mu seetaanee Sonacos ba mu yàqu tey ba egg fi mu egg loolu gàcce la ci Sénégal ñu ne problème mu agriculture bi ni mu amee feneen ak feneen ci Sénégal parce que damay bëgg toujours problème yi ñuy posé ñun ñëpp ñu xam ni du problème mu Dagana du problème mu Podor du problème mu Ourossogui du problème mu Mbumba du problème mu du problème euh, Mbelaka Diaw dans le foo dem même problème yi lañ lay signalé. loolu nag li mu war a jur ci ñun mooy ñu xam ni ku yaakaar ni Sénégal mun nga defar benn gox bàyyi gox yi ca des da ngay sa bopp Sénégal day ànd baaxandoo wala mu continuer bonandoo ñun ñëpp ñu suuf rek problème boo ci dugg ma nga feneen koo dem jëli dañu naan amatuñu amatuñu liggéey ñun ñëpp Jakarta rek la ñuy def wala immigration clandestine noonu lañ koy waxee fépp kon ni ñuy wax ni problème mu intrant yi ci mbay mi problème ndox mi cent vingt mille francs à l'hectare pour ndox mi dafa cher kenn mënul liggéey ci loolu ñu problème mu bi alors que nee nañu installé nañ benn centrale solaire boo xam ne nee nañu am doole xam nga li ci nguuru Macky mooy Macky bu ñu leen wax su ma ngoon jot toppale

mu jël ci kenn rek seppi ko te kookooy ku mujje ci seen politique bi daal di def seede bi mu def ci ñun loolu rek doy soutien pour que ñu mën a wax sénégalais yi ñun li ñu gëm fii mooy ay yéen demo bi ngeen gëm ko la jeunesse de ce pays vous avez en face de vous le meilleur candidat un candidat anti-système un candidat intègre et un candidat compétent

rawatina ak ñoo xam ne ils ont détourné l' argent de ce pays jaru ko xeex ngir Ousmane Sonko sax jaru ko waaye xam ne lu jar a xeex xeex ngir des principes des idées et xeex ngir ton pays kooku jar na joxe sa bakkan su dee loolu nag mën nañ ci ànd ñun ñëpp xeex ba tax li ñu le pacte qu'on dañu bëgg fii la jeunesse de Dagana les populations de Dagana amul mag amul ndaw amul baykat amul commerçant amul transporteur amul étudiant amul élève amul ouvrier amul artisan dañu bëgg ñu signer un pacte ñun ak yéen pacte bi ku nekk dafa am lu mu ci war a def xam ngeen lan mooy seen par xam nga lan mooy seen par mooy le 24 février fii le 24 février d'abord est-ce que ñi fi nekk jot nañ seen carte est-ce que parmi vous am nañu jotagul seen carte électeur est-ce que am nañu jot seen carte électeur ñi seen carte électeur ko ñaan ko ci commission yi parce que 2019